السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم mbokk yu baax yu tedd yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen siyaare di rafetlu ànd gi nga ànd ak ñun di wax ne ñi nga xamante ne gan leen ci seen bi nan abonné tey partage vidéo yi ku amul laaj na ko bind ci suuf dinañ ko ci ñëwal incha allah tey nag dañoo ñëwoon di leen présenter loo xamante nii lu ama am solo lu am solo lool ci dunduk doomu aadama te mooy euh, ndombe gi ngeen di seen ndomba gi kaaraange day dox ci moom ak ubbeeku ak wërsëg ak tul bi maanaam tul loo xamante nii boo ko amee bu dara daal boo xam lu xeet ak lu du ñuul lu dugg ci sa yaram lepp lu xet ak weñ gu ñuul du dugg ci sa yaram inshallah ta te gi karanga la andal karangu gu gu gu ama am doole sax ko xamanteni ni boko yoree police du la japp do do do do du ko sa diir bi yaangi and ak ndomba gi li fek tojoo ko mom diir bi nga and ak mom yow do ma sa dugg ko sa inshallah mo xam ci nit ñu ñuul ñi nga ci nit ñi weex ñi dëkk boo man di nekk wallahi alxasiimi boo amee ndomb gi ak loo mën a def ak lu mu rëy rëy rëy rëy doo dugg kaso wallahi alxasiimi doo dugg kaso loolu yi moom ñi ko jot am xam nañ ko bu baax a baax bu wér a wér a moom lañ ñëwoon tey nag présenté leen ko ndomb gi daal kaaraange la dina la musal ci kaso doo dugg mukk kaso boo ko amee mukk mukk doo ci dugg kaso moom mukk moom te tamit ak tul la ànd naag euh, kaaraange ànd naag euh, ubbeeku incha allah képp koo xam ne bëgg na ci rek bu ñu jokkoo ak ñun ak fu mën a nekk rek danañ ko ko jàppandal incha allah jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa